ci diine Muhammad téere bu sell bi wàcc ci ñun ñu ne lépp ngi ci biir te juñ ci gis dara bala ñu ci dara gis dara rek keneen keneen am ci miracle euh, euh, Coran et les miracles dañuy bàyyi ba mhm. nañ ñu gis dara rek ñu ne pourtant mu ngi ci livre bi je disais à mes élèves parce que moi je suis professeur de SVT que les récepteurs sensoriels buñ ñu waxee ci téere bi nii dañaa leen lakk ba ngeen nekk doom ma defaraatal leen pot bu bees booba ñu ngi wax ni liy sentir fii la ne ñoo ko waroon njëkk gis ñëpp. Mhm. waaye feneen lañ ko gis ni ah pourtant wax nañ ko ci biir. Mhm. donc il faut qu'on cesse d'être vraiment dafa ci bëri. bon dañuy bàyyi rek ba mbir ni këtt ni jon rek. ñu doog wax ni pour pourtant lii am na je pense que vraiment war nañu nekk ci beneen posture nga xam ne yooyu yëpp ñu profité ci càmbar ko. boo wax dëgg yàlla ñu gën jëm ci kanam loolu rek laa amoon li ma ciy wax. d'accord professeur euh, ñu bëri également suñu waxu euh, Miss Sénégal comme sëñ sali nu mu ko nu mu ko waxee on allait euh, poser ce débat également dañuy indexer la responsabilité des parents mais parents yi ban responsabilité lañ mën a am par rapport à ce qui se passe là-bas. waaw mais parent bi responsabilité bi mun a am mooy responsabilité ko yàlla jox mooy responsabilité bi ko société bi jox lu doomam di def mu xam les tenants les aboutissants. xam nga yow yaa ngi fii di liggéey mais sa papa sa yaay xam nañ ci li nga nekk xam nga ñun wàlli yaan daf ñoo sonal la déculturation daf ñu sonal dañu jël ay concepts yoo xam ne moomuñu ko indil ñu ko tey xam nga je vous remercie beaucoup parce que gis nga malaise bii nii ni ñu ñàkkalee solo éducation mooy répercuté tey ba ci Miss Sénégal quand on parle de l'éducation c'est toujours la cinquième roue de la charrette partout dañ koy taf tafee après jàll. moi j'aurais pensé que il était plus important de poser un débat sur la violence dans les écoles tout le temps que de poser un débat sur une Miss Sénégal qui est violée ça c'est mon avis personnel. xam nga wax kii wax na ko léegi gis nga élèves yi nga xam ne nii bu fekkoon éducation tey amoon na valeur école bi am finalité am njëriñ am na élève bi du bàyyi jàngam dem naan dafay nekk Miss Sénégal mais je le dis et je quatre vingt pour cent de nos enfants yi nga xam ne ñu ngi ci école nekk jigéen tey ku ci amoon occasion voyager wala nga dif mi Sénégal wala nga dem woyi wala nga dem ci ay affaire foyo yi ñu leen def ñoom ñëpp dañuy génn dem parce que justement école bi éducation bi dañ ko foyo ba kenn léegi gisatul njëriñam xam nga mi Sénégal ma li ma ciy wax mooy d'abord sur le plan religieux suñu defet la parce que du suñu diine du suñu diine parce que yàlla moo wax ci alxuraan mu ne jigéen ñu muuru leen tubaab yi ne futteeku leen parce que Miss Sénégal sur le plan culturel impérialisme culturel la colonisation esthétique la xam nga lu tax mm. est-ce que xam nga lawbe du nekk Miss Sénégal si nañ ko waxte de parce que les canons de beauté ont été dessinés par l'Occident il faut nga nekk taille fi niroog benn genre chingom Hollywood boobu noonu pour nga mën nekk Miss Sénégal c'est ça la réalité moo taxoon mu dem ba mu am ay réflexion culturelle ku mel ni Ousseynou Kane chef de département filo ak ñeneen di wax ne lu tax mënuñoo def Miss Jongama ñu essayé ko mais xam nga lu tax du dem parce que Miss Jongama tubaab bi cautionné wu ko parce que tubaab bi gëmul ne jigéen bi nga xam ne ñu baal ma ci wax bi noonu laa ko mën a waxee mais dafa waŋ comme ñun ñu ko buggee nekk Jongama kooku rafetul la preuve aujourd'hui il y a deux grands combats que l'Occident de mener mooy lépp loo xam ne nii ci der bu ñuul dañ ko war a dindi nen na xoolal diw yi ngeen di diwoo ay clair light ay light cheveux xaw ma nangam nangam léegi ñëpp dañuy bëgg a xees parce que loolu complexe li Cheikh Anta joob di wax la donc problème bi du ay problème mu Miss Sénégal ñu koy raay di dem dañuy xool malaise culturel bi ci nekk pour nga mun a nekk Miss Sénégal yow doo niru sa yaay da ngay jël sa régime xoolal jigéen bi ñu wone fii léegi soo ko xoolee da nga yaakaar ne xoolal xoolal kii kii da nga yaakaar ne fukki fan ak juróom lekkul ça te rappelle bi kii moo rafet que tubaab bi jigéen bii la gis ne lii moo jigéen mais jigéen boo xam ne chez ñun dafa nekk diryanke soo ko wanee tubaab bi daf naan la baaxul la preuve mooy créé nañ tout un arsenal esthétique pour am ay minceur loolu aussi dañ ko war a wax beneen bi mooy nen yow wax nga ko léegi la notion d' objet sexuel xam nga Kumba la sekk dafa woy mu ne man duma doon femme objet mais yow nga toog nekk jigéen summeeku ci ay nit ñu lay évaluer comme on évalue une marchandise tu deviens une chose que l'on chosifie à travers des caméras ñu pare la ñu ne yow yaa fi dàq en réalité ñi kan lañ dàq association féminine du ñan lañ dàq ñi ñu dàq mooy ñi nga xam ne nii ñoom dañoo dem présenté wu mais am na ay jongama miis yoo xam ne ñu ngi ci kër gi nekk ay yaay faal nekk ay jongama nekk ci seen kër yi te kenn dàqu leen kon gis nga showbiz ak sexualité ak drogue ak corruption ñoo ànd yow yaa ko fi wax léegi il va avoir des révélations lan mooy ndey nga jël ay xale indi leen ci naar mu koy raay. Ah, vraiment ça dire que nanga nangoo ñu tëdd la soo nangawul ñu tëdd la ñu dénoncé la. ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dem foofu bu ñu fa amee dara nañ ko assumer. xale yi toog ci li saa neex di wax non loolu laay wax. parce que loolu laa mais professeur professeur non euh, soo waxee loolu c'est comme si da ngay cautionner ce qui s'est passé. je ne cautionne alors je sais que yow dangay ngay dénoncer ce qui s'est passé. non non man da non cautionner wu ma dénoncer xam nga damay def dama Olof Ndiaye dafa wax mu ne mënoo dugg ci tiir génn ne du ma takk mi Sénégal fi wax nañ ko xaalis bu mu am avenir am matériel am nga nekk fa ña nga fa nekkal yore seeni xaalis bokk ak ñoom ndey ak dañ laa bëgg jëriñoo et si vous résistez à ces tentations vous ne serez pas primé loolu moo nekk fii ci dëkk bi on connaît les dessous mais ñoom ñoo ko wax oo oh, ay nit indi ay naar ñëpp xam nañ naar ni mu jàppee nit ku ñuul Mais qu'est-ce que vous voulez que l'on dise maintenant Qu'on se mette à caresser parce qu'on a peur. Ces mouvements féministes-là, vous savez ce jigéen ñi ñu jël tey daf leen ay objet sexuel daf leen ay femme objet di leen def taati neen di leen solo yu nekk ci ay clip nekk ci ay mbedd nekk lu ne loolu la waroon a kaas mais loolu duñ ko kaas parce que li ñu wax dañu am sedd plat nit ñi jàng nag dofuñ xam nañ fu ñu ko jëmee de toute façon li ma ci mën a wax mooy milieu showbiz ku fa dugg la la fa fekk yow la mm. léegi nag dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko violé na joxe preuve moi je ne suis pas un procureur si c'est la réalité le procureur fait la reste d'autant que dans ce pays les problèmes de viol ne sont jamais résolus on a entendu déjà yoo xam ne euh, euh, euh, justement suñuy wax Miss dañuy xalaat automatiquement euh, débauche également tout à l'heure yaa ngi wax naan dañoo voilà c'est le mot que j'ai cherché la débauche merci de me l'avoir donné dañoo bëgg dañoo bëgg lem-leemal lii di avortement médicalisé jaaree ko fii mais c'est un peu fort quand même Dame li wax nii. Ah, ak ak fan fan nga war a teg nekk dañu bëgg eh, jaaree fii. pour pour pour pour dugal lii di avortement. dama ne la dama lay wax. gis nga ñoom seen xale yu jigéen yooyu ñu ngemb ñoom association féministe yi nga xam ne ñoom ñooy def plaidoyer pour avortement médicalisé dama la dégg ci coow li. bi coow li amee au lieu ñu wax comme ni ko Sanou si waxee yow ñuy futti jigéen ñi bés bu ne. ngay yow di di di di protéger jigéen parce que euh, protéger jigéen kay weesuwul nga nga taxaw ci li nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala wax ci jigéen. kese mooy na muur yaram. yow nga gis ñuy futti jigéen ñi waxoo ci daan léegi. voilà léegi ñun dañoo gis ni ni di di focaliser wu sur euh, euh, bu fekkee viol am na lii mooy wane ni lañ doon wax ni avortement médicalisé bi ñu doon bi ñu doon def plaidoyer ñuy fël suñu gémmiñ léegi dañ cee war a wax donc ça veut dire ñoom li leen intéressé du ñu toroxal jigéen ñi parce que toroxal jigéen weesuwul futti ko ñépp di ko seetaan ci àdduna bi kon moo tax ma wax sànq ni loolu du suñu aada du sunu cosaan maintenant nag mënuñoo du sunu diine kon nag ñoom mënuñu profitoo ci loolu naan ay noo lañ doon wax ñëw na tey yàlla may nañu ndam parce que tey am nañ non c'est de tout le contraire yàlla may leen benn ndam lañ waroon a taxaw xeex ko loolu lañ xeexul donc association féministe yi encore une fois bu ñu dox ci xelu sénégalais yi fii mënuñu fee layala layala layal ba dugg ci avortement médicalisé parce que wax nañ leen lu leer c'est un discours de la majorité de sénégalais ñoo ne d'accorduñ ci avortement médicalisé ñu koy lawal suñu réew parce que dëppawul ak suñuy diine maanaam diine chrétienne ak diine islam ñaar mm-hmm. yépp d'accorduñ ci ñuy lawal yàq biir parce que avortement médicalisé mooy yàq biir donc maintenant la ca yàlla subhaanahu wa taala wax ñu ngi koy def fii Sénégal mooy bu ca jigéen ju loru ak lu mën a doon muy nekk ci séeg mu naa caa nekk bu ca naree ñàkk ba kanam bu ko ña spécialiste yi waxee dana yàq biir ba parce que loolu c'est pour aar ko moom ki nga xam ne moo wan na lor waaye nag ba koo lawal ci léegi ku nu violé te léegi dama la jox un exemple cas bi xam nga ndaw dafa accusé ni viol am na après 14 mois 14 mois après parce que moom euh, au moins pour mu am doom du euh,